borom dëkk bi mooy Lamal maa ngi nuyu aussi le chef de quartier maa ngi nuyu responsable des familles maa ngi nuyu ñëpp ñu fi sama yaay sama tanti, sama xarit yi ak kii nga xam ne maanaam mooy sama xarit mooy sama mbokk mooy sama frère mooy Cheikh Adama Niang maa ngi nuyu aussi kii nga xam ne maanaam tey moo waral bés bi mooy Virginie Dione mooy secrétaire général li may faral di wax rek mooy man jumuma lu tax ma jël Virginie mu def ko sama secrétaire général parce que d' abord si si dëggutee moo tax ma jël ko parce que li may faral di wax rek mooy séeréer dëgg séeréer lu ma daf koy def séeréer du wax wax wet ci loolu yàgg naa toujours di ko wax ñun nag dañu ñëw pour jàppale le président la plus on excellence Macky Sall ni ñu koy jàppale si dëgg moo dañu ñëw di diggaat li ñu xam ne ko def en tout cas tey vraiment lii nga xam gis naa ko si Wango limay may di wax bi ji maa ko legi man xamal le Wango la deug ama may xam biir li xamona naa Wango am fi ay amna fi ñoo xamne ne sax bu tur seen tour xamna le ne bu baax a baax yàgg nañu sekkante si lolu limu mëna wax rek moy vraiment ma ngi rafetlu bu baax baax li nga xamne tay mom la fekk rassemblement bi en tout cas limu leen di ñaan rek moy ñun de dinañ continuer à vous accompagner limay ñaan comme ni ko sànq responsable femme bi waxe ñun président Macky Sall moñ taxal tax parce que président mu ngi liggé mu ngi def action yu bari au niveau de caisse action yoy nak dañu bëgg a fël en tout cas vraiment li may vision rek moy li nga xam gis na ko wax nga vraiment dal sama xel motax ma ngi aja bala may ñëw mané ko ñun nak li ñu mën moy dañuy fexé vraiment jappalé femmes ci walu formation yi bëgg na vraiment à partir de semaine prochaine aja nga jokkoo ak Virginie ngeen xol ni ñu former femmes pour au moins ñu xam ni ñu am ni ñu japp

ànd kii nga xam ne maanaam moom moo def moo def liggéey bi sax ci wango bi la dëkk mooy Jean moom moo def liggéey bi donc mu di que wango sama kër la sama dëkk la sama quartier la li may wax rek vraiment rafet naa bu baax a baax ci taxawaay bi li may ñaan rek mooy ngeen dolli ànd ñun jàppale son présidence le président Macky Sall incha allah rabi doo leen ko rëcc ñun mouvement ànd soxla Thiès mouvement de développement mouvement en action la mouvement xam ne dañu jóg vraiment pour leeral lii nga xam ne président Macky Sall mu ngi ko def biir donc si loolu lañ nekk di dox li may mën a wax rek mooy Virginie lii nga gis xam ne gis naa ko ngi sama xel tan la di la ñuy jàppale vraiment lii nga xam ne mooy jeunesse bi li may ñaan rek mooy jeune wango ñi nga xam ne jàng nañu ba pare am ñu benn diplôme nañuy fexe parce que créé nañu benn base de ñu ngi ressourcé ñu ngi jël ñu ngi recensé xale yëpp xam ne am nañu dañ ko déposé ci suñu siège incha allah lépp li nga xam ne maanaam ñu ngi koy def dañ ko soxla yàlla. en tout cas la formation ko def incha allah si di ñëw naa jokkoo ak euh, euh, Virginie euh, pour mu xool lu ñu formé jigéen ñi si wàllu origine bi si wàllu savon bi si wàllu confiture bi dinañ ko def. lu mu mun rek comme xaw na guddi dafa may bokk xam ne dañu war a dellu indi lii nga xam ne maanaam moom moo nekk si awro bi dama ko jox lii nga xam ne mooy borom dëkk mooy lamal bi mooy si benn contribution boo xam ne def nañu ko rek son excellence président Macky Sall moom moo ko teg sa loxo. beneen bi bii nag bu ndaw la geste bu ndaw boo xam ne def nañ ko rek li si des nag mooy euh, formation bi def jeunes femmes dinañ jafe dafa leen ay formation comme ni ko son excellence la ki waxee. dinañu fexe jàppale leen si wàllu formation bi te si aussi tamit di nga waajate benn li nga xam ne si wàllu jeune mooy dañu bëgg former benn formation de leadership dañu bëgg a choisir cent donc duñu fàtte wango dinañ jël si ay wango former leen si wàllu teinture si wàllu sérigraphe si wàllu management incha allah formation di nga a démarrer si mois de mars li mu mun rek mooy vraiment di leen si taxawaay bi xam ne defee nañ ko comme noonu ko xamee ñun maanaam duñu ñëw rek def di jóg jàll incha allah yëpp lu ñu def dina am suivi dinañ fi delluwaatee si fan niiw ànd ak yéen di leen remercier bu di jégalu vraiment tamit si toogaay bi dégg ba léegi jigéen yaa ngi fi toog di ma a li mu vraiment di ànd ak ki nga xam ne maanaam mooy sama secrétaire général di ko nekk vraiment chapeau ànd liggéey ngir soqali Thiès vraiment jërë ngeen jëf merci wasalaam ak santam di dalal gani jàmm di leen wax ni yegsi ngeen ci dëkk boo xamante ni ñu ngi leen di dalal jàmm. di wax ni Habib Niang bëggul lu lut Macky lu may yi lay wër te ñun fekk nga ñu bëgg yi ndax depuis 2008 2009 man ak sama xarit bee nekk ci ginnaaw bu tudd Ajuma di Bintu Mbay ñu ngi ci boobu ba léegi. dawuñu daayuñu ànd ak waa koñ bii ñu ànd ak ñun dawuñu daayu xëy na dafa am yoo xamante ni amul suivi am na yoo xamante ni amul suivi lii boo gisee ni euh, jeetaay bi am na lu ci manqué mooy dafa am benn xale bu ñu tàggee sànq nga xamante ni fa genn wàllu yi fa la ñu dem ndax ñu ngi koy doog ay deux heures

ñu ngi lay ñaan ay renforcement ak loo xamante ak ay formation yoo xamante ni ñu mën a jàppale ba ñu jàppale suñu doom yi ndaxte jigéen ñi boo xool boo xoolee ba xool ñoom ñoo yor kër yi na kenn ku ci nekk yaa ngi sa carte électeur ndax ci liggéey carte électeur bi defoon nañ ci liggéey bu am solo kenn ku nekk jàpp nañ la yóbbu la ba ci centre yi utal la ay carte électeur ñoom nii koo ci laaj sa carte électeur mu génne la ko kon bravo les kon ñii ñi ngi leen di tàcc bu baax a ba amuñu seen fay amuñu seen fay léegi Habib ñu lay ñaan ñëw nga fi tey te yàlla bu mu nekk sa lu ñëw nga toppat nga toppatoo ñu nga toppatoo ñu toppatoo ñu yi ba lépp lu ñuy yóotu ñu jot ko lépp loo ñuy dégg mu am suivi nga meññ ay formation ba xam ne suñu doom yi dinoon ci mën a gis seen bopp Merci. Bon, voilà, merci. Je suis donc euh, le délégué de quartier. Un délégué, c'est quelqu'un qu'on délègue. donc l'Imaï wax et donc en ma qualité de délégué de quartier je voudrais vous souhaiter la bienvenue parmi nous vous membres de toute la délégation aujourd'hui en toute couleur, en milieu serré et de retour chez lui. Aussi, nous vous accueillons les bras ouverts, prêts à vous accompagner dans vos démarches. Merci. Le délégué étant à équidistance, je m'en arrête là et vous souhaite pleine réussite en milieu serré. Voilà, je ne voudrais pas être long, mais nous l'avons vraiment jam. On l'a quand même,

de vous remercier aussi avant de commencer mon propos. je tiens d'abord peut-être à préciser une affaire ci suis waxam euh, président des jeunes du mouvement D'accord, c'est un mouvement que j'encourage beaucoup mais aussi puisque les politique ñun sont peut-être un peu sensible ça. bon nous, peut-être préciser que je suis chargé de communication du mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Thiès et que je suis membre authentique de l'APR loolu bu wess merci merci loolu bu wesso limay def pour commencer moy féliciter monsieur Habib Niang parce que liguey bu rafet bi nga nekkee Thiès ñing koy rafet lu ñing koy gis tay jii ni nak bo ñëwee ba yegg à Wango ça signifie que amna ben relation de confiance bo xamni ne commencé na tissew ñing ñaan yalla relation boobu jëm kanam ci bir jëf ji dafa am lu am maanaa loo xam ne man moma ñor ku bëgg président Macky Sall man bëgg na la kuy dox ci président Macky Sall damay dox ci yow xalé la peut-être je suis encore jeune trop jeune même peut-être mais dama teel a comprendre benn affaire Moi, qu'avec Macky Sall Sénégal fi mu mon mën na faa faire bu fi jógee wala mën a faa jógee sax ay pour continuer il a un bilan très positif plus que positif et c'est un bilan à voir ne ñun li war mu Habib ak ku mu mën a doon li la war bu dee da nga jóg pour jàppale ko mooy wër conscientiser population yi jéem a bokk ak ñoom seen i di leen jàppale boo leen mënee jàppale donc li ngay def nii encore une fois de plus maa ngi lay féliciter di la encourager parce que loolu moom la suñu responsable national santaane mooy euh, Macky Sall loolu la aussi yëpp kilifa yi nga jóg xam ne yi liggéey biir APR ci biir département bi moom lañ santaane ñu ne ci biir commune bi moom lañ santaane donc monsieur Habib Niang encore une fois félicitations di ñaan yàlla li nga nas si nii et que nous on est de tout cœur avec tout ce qui bouge pour le président Macky Sall parce que Macky deuxième mandat nous ko à notre niveau. Nous profitons peut-être euh, ci occasion bi pour wax ce que Le fichier électoral bi normalement c'est à partir du 20 février donc nous ñu binduwul pas nous opportunité parce que 2019 premier tour lañ ko bëgg gagner. bu ñëpp defee ni abib ñaar teel a sol seen dàll dox ci gox goxaan yi gëm naan 2019 formalité lay doon encore une fois bëgguma monopoliser la parole di remercier jeunes yi ma àndal ni di nuyu njëkk suñu kilifa di monsieur abib Niang mi ñëw tey seet si ñu ci biir Wango di nuyu suma sëriñ bi ma tàmm te bëgg ko ci sama biir xol te fu nekk Habib di fa dem mu ngi bàyyi ay yitteem di ànd ak moom muy Serigne Cheikh Adama maa ngi lay ziar di la nuyu Serigne bi was bu ma nuyoo kilifa yu baax yi di nuyu sama mam bi teew fii di lamaanu dëkk bi di sekk jarga njoon moom mooy lamaanu dëkk bi su ma ci tegee teg ci suñu délégué de quartier Albert Richard Ndione maa ngi lay nuyu di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi ngeen taxawu tey ñu woote ci dëkk bi boobu ba léegi yéen a ngi toog di ñu xaar kon yàlla na leen yàlla may wér te fii ba bàyyi leen fii ci kanam ba ngeen di mën a gunge njabootu waa Wango gépp bu ma fa jógee dinaa nuyu délégation bi ànd ak Habib su ma limee dinaa jum waaye ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sama biir xol di leen dal leen ak jàmm ci biir Wango bu ma noppee nag ngeen may ma tuuti ma gërëm waa Wango parce que fii laa juddoo fii laa màggee fii laa amee teranga fii lañ ma ma nekk fi conseil municipal kon dinaa tey delloo waa Wango njukkal occasion la tey waa Wango maa ngi leen di gërëm mënuma lim nag waaye dina am ku may lim ndax bu ma jaaxlee tey mu ngi fii mooy suñu kilifa di sama tànt Germaine Diam bi nga xamante ni sama yaay mu ci lal bi mais mu ngi uuf boobu ba léegi il faut ma lim ko ndax mag la tey waroon na mën a toog ci néegam waaye ñëw na tey ndax doomam moo fi woote moo tax mu teew donc Mémé maa lay gërëm di la sant di la ñaanal Mariama mu sell mi bàyyi la fi si sa njaboot nga ñuy gunge ba fu ñu bëgg a àgg donc bu ma gërëmee ñooñu gërëm aussi sama tante Louise. moom itam mënuma ko bañ a lim parce que depuis ba ñu waxee manifestation bi ba léegi bàyyiwul dara mu ngi ñuy woo du ñu jàppale boo leen xoolee lamp yi yëpp tey moom moo dem uti ay son làmp lu ne mu def ko ndax lan doomam jarbaatam la woo moo tax tey ñoom ñëpp ñu jàpp ci su ma limee nag damay juum waaye may leen ma rek ma wax leen ne mënuma lim ñëpp mais ku ci nekk nuyu naa la ci sama biir xoola xool bu baax a baax Ologe Sylvain maa ngi lay nuyu Tongu Gueye nekk responsable des femmes ici à Wango maa ngi lay nuyu ak ñi ngeen àndal waa garu groupe bale wax nañu dëgg xëy na naam waaye defuma fi lu nga xamante ni jar nañu ñu ngay gërëm ndax lépp lu ma def rek yàlla moo tax ma def ko ngir sama askan te su ma ko mënee dinaa ko def su ma ko mënul itam dinaa ko wuti feneen ma def ko kon yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm su ma noppee foofu ma ne leen Habib mi tey dama koy gërëm ndax gis ngeen délégation bi nekk fi tey gënuma leen gënuma leen ëpp xam-xam gënuma leen jàng gënuma leen itam xëy na am dara waaye Habib daf ma xool ne Virginie doy nga ma nga yor sama secrétaire général mouvement wu ànd sukali Thiès ak Habib Niang kon Habib maa ngi lay gërëm ci confiance bi nga ma jox kon nañu ñaan yàlla suñu borom yàlla bu ñu yàlla bu yàlla yaakaar tas yan nañu ànd ci ngor ñu ànd ci teranga ba le vingt vingt quatre ñu yëkkati lépp teg ko ci loxo Macky Sall ñu ne Macky Sall toogaatal palais ba ku la fa ñu jëflante yow parce que xam nañu ne nag quartier bi bëri na waa réew mi waaye ñun de. Wawango Mom, nous sommes tous derrière le président Macky Sall et nous sommes tous derrière Habib Nia dans son mouvement en dessous de l'UTS pour wan ko Mom le la Macky Sall teg tek na fi ñeneen waye moom itam mu ngi doxal walam ci président Macky Sall kon Habib yal la yalla may ndam bi Macky Sall am ci yow yaakaar bobu yalla bu ko yalla suñu borom tas. asalaamaaleykum ma ngi nuyu suñu président. Habib Niang di président mouvement ànd suqali Thiès donc boobu ba léegi ñi ngi toog bàyyi seen yitte yëpp ñu leen di baalu àq bu baax di leen wax aussi ni fecc bi neex na lool tëgg bi neex na mais nag dafa am li nga xamante ne nii moo nu fi yëkkati mooy lan mooy que ni dañuy def politique dañ koy wax politique bi ñuy def nag Nous avons un mouvement ànd Soukali dirigé par le président Habib Niang derrière le président Macky Sall donc a naa ni une politique de développement Nous def ñun defuñu politique politicienne boobaak légui nak sur le plan santé bo len xolé euh, couverture maladie universelle ñi ngi distribuer ay au niveau des postes de santé aussi

Thiès nak dañu won euh leader politique ndax ku nek jaar na fi façon leader bu nek amna bir Thiès mais nak ki nga xamante ni mom moy l'homme nouveau muy kan muy euh, monsieur Habib Niang donc dañ len ko accompagner dans son projet de sa mission de soutenir Thiès c'est vrai que Thiès euh, politique bi metti na fi loolu mais nag ñun comme ni ngeen ko xame politique de développement la ñuy def boobaak léegi nag tooguñu ñu ngi ci formation yi ak jigéen yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci euh, formation eau de javel bi ak saabu bi ak euh, céréales local aussi ñu ngi koy def donc euh, ci gàttal maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax ne leen président rek lay xaar monsieur Habib Niang mu jox ma ordre ñu ñëw defal leen formation fi ci Wango ñu ma ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant inshallah merci beaucoup je xarit suñu sëriñ Cheikh Adama euh di nangu def euh, gi nga xamantene yalla moko tek moko ko def ñu nangul ko ko euh, muy jog aussi di and ak ñun ci lepp li nga xamantene ñi ci yëngatu di sant aussi jigen ñi ñu andal di sant jeune yi di sant sunu président Habib ñang di sant suñu président Habib Niang ma bëgg nga yéen ñëpp ngeen tàccul ñu suñu président Habib Niang ndax li tax ñu ne nañ tàcc suñu président Habib Niang ndax Thiès dafa am lu mu rafle woon mooy leader bu am fit am fulla am fayda xam fi mu teg tànkam loolu la cees rafle woon mais tey ñun loolu cees rafle woon dañ ko gis ci moom muy président Habib Niang am fulla am fayda am fit am jom di jàppale jigéen ñi di jappalé jigéen ñi di jappalé jeune yi di jappalé mag ñi di jappalé sëriñ yi di jappalé kër diine yi donc ñun leader bobu lañ doon wër gis nañ ko ci président Abim Niang donc ñun ñu fayda képp kuñ daan andal demb ak barki demb xam nga ci ñun fulla xam ci ñun fayda mais ñom ñëpp dañ leen laxas sànni leen fële parce que ki moy Abib moy leader biñ ñu daan wër te gis nañ ko kon ñu ngi leen di ñaan yeen wa Wango yeen wa Wango ngeen japp

di initier les jeunes kon ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ñaanal vraiment yàlla na yàlla jàppale leen suñu président nag ñun dañu koy ñaanal wér parce que gëm na boppam xam na fi mu jëm gëm na boppam xam na fi mu jëm ñun faalewuñu kenn parce que ki ñu ki ñu nekkal xam nañ mooy kan gëm na boppam xam fi muy teg tànkam donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan waa Wango nañu jàpp ci mu mouvement bi bu baax a baax a baax a baax

buñu ñu bàyyee sens bi dem ah dinañ ko wëraat té day fekk mu sori ñu donc tay sens bi buñu am moy le président Habib Niang ak mouvement bu mu andi fi ties mouvement ànd Suxal ties ak Habib Niang mu ñëw nak mu ñëw mu ñëw nak pour mottali liggéey Macky Sall jot nañ ñu bari xam nañ pour peut-être nañ né président nekul di liggéey waye président ñu ko représenter ci seen gox ñoo nekul di liggéey mom nak dafa jog nak pour woné président nak man damay liggéey ma wol na ni nek nga fi neko fi man dina la fi nekkal fi ties te ties dina dem si bobu ma nga len di ñaan ngeen am nak sen yaay sen rak sen mag kuko gëna jégé moy kan moy Virgile ndion donc tay ndion bu avancer si mouvement bi pour yen la wawango donc te da ngeen wara manko ngeen andak mom jappale ko ndak mouvement bi dem ci kanam parce que xamna ni mouvement bu avancer Thiès moy avancer Thiès bu avancer Wango moy avancer Wango bu avancer nak Sénégal dina développer Sénégal dina émerger alors ma ñëwaat nak ci jeunes yi nak amna benen borom xam-xam kuy ne ci nasaraan dis-moi quel jeunesse qui a je te dirai quel peuple tu auras moy lan moy wax ma ban jeunesse nga am tay heure bi bu may wax ni suba dinaa la wax ban population ngay am bu doon jeunesse bu nga xamne bu am pass pass bu doon jeunesse bu nga xamne bu conscience situation bi Sénégal dina développer té Sénégal ñi ngi wax Sénégal émergent Sénégal mënul émerger tant que jeunes yi nag xamuñu nag ñoom war nañu bok war nañu participer ci émergence Sénégal donc ma ngi ñaan la jeunesse de Wango ñu bok ñi manko ñi xam nak Virginie Mounifi, c'est un côté Si une cellule de soutien de Habib Niang jeunes yi mooy xale ak créer cellule cellule de soutien de Habib à partir de cette cellule nous nous liguer ensemble en tout cas comment réaliser les projets de Wango à travers Virginie Nyan, à travers le président Abim sur le mouvement Andesokal Kies. vive monsieur le président Abim vive le Sénégal vive Wango vive Virginie Nyan.